a nga maa lay yedd léegi nga ne bu ma lay yedd. kan moo fi ne nga lutti na ñëw di ma yedd bu ma xas fii kaan ko ne am na lu ma mën a xasee mënam soo bëgg ñu xasante. xasante wu ma de bakk yàlla. xasante wu ma da ngay gont. damaa war a ma manqué sama ëllëg gont gon paase la gont paaka yaa ma taal daal. waaw borosu daal yomb na. mais non boobu la bu ci dugg. dama gën daa xëy xëy loo sooy ne ko. waaw fii fii ku ne am na loo weer loo xam kenn du ko wax. waaw yooyu yëpp doo ko benn kàddu fi jug muy sa gémmiñ gi day xeeñ. jugal nga dem liggéey. seen sa démb daa xam bu mu ñaal. kon man na. ba xëy gënoo maa leew ëppoo ma doole. ñaar nga ma wax ma ci beneen. boo demee man na man na. ba mu jëm te ñii xale foo leen ba pare saa saa lu lu waay wax nga nga ngeen bëgg a dugg di jaar kër teg. toogal. léegi eh, noonu ah. kan moo la xaraf mu man. damay gonti laa. kan moo xaraful la wax. sa waay damay gont Paa Dukkule. damay laaj kan moo xaraful laa wax kan moo xaraful. Paa Dukkule yaay taale sama gont bi de. di nga gont léegi gont boo xam ne da ngay dem wala da nga di yóbbu. ah damay gont de kan moon la man damaa xaraful. ah baax ah jum nga. ki la wax loolu jum na. Eh, góor gënu maa wow man. xalaf bàyyi xase xase la nag. ñan ko boo ma ko waxaatee ma la ñu sura nga xam ne def dëgg la. bakk yàlla dugg ko ba laaj dugg ko duuf.